dama kre lu bestak, tureko rpp rpp mooy revue de presse publik, revue de presse mi defi, def defi. bi may public rek nga ko mun seetaane amul feneen foo ko mun seetaane ndax du revue de presse classique comme ni ko nit ñi di defee revue de presse la boo xam ni maa ngi si fas yéene ànd seeg pédagogie bu mat sëkk ndax nag ancien directeur de publication la kon am naa expérience ci li nga xam ni moom moo di presse damay def recherche yu bëri ci wàllu li nga xam ne mooy tas xibaar ba pare nag formateur la maanaam jàngalekat la te jàngalekat boobu ma nekk lu ma bugg di ko yemale si samay étudiant kese dama nga bugg di ko ya di ko di ko yaatal ci population bi ak ci public bi moo tax man saa su ne damay jàngat li nga xam ni moom la yéene yi génne ma jàngat ko bu si nekk ma commenté ko wax la ma ci xalaat li ma si wax nag mun na neex nit comme mun na ko naqari mun naa tey ji wax ci la màndaa bi nga xam ne Aliou Sow moo ko jiite mu kontaan suba mu tiitre ma wax si moom loo xam ni du kontaan mais loolu tamit nag mooy le débat loolu mooy débat démocratique loolu mooy loolu mooy contradiction te ay nit bu ñu nekkee contradiction dafa war a dox seen diggante dégg nga kon pap pap ci gan bi laay tàmbalee tey tey tey tey tey mandat laay ubbee moo tax sànq bëgg moon am benn influence xoolagu moon mandat dama bëgguñu ñu découvrir ndoor tey une mandat après ma laaj am ay laaj yu ma yu ma séq ak borom mànda jox ma la mandat ah ok génneel ma la mandat après nga génneel ma yéene kaay yëpp yi nga xam ni ñëw na may profito di nuyu ki nga xam ne mooy Mamadou li moom mooy def li nga xam ni moom mooy revue de presse waaw mandat Sonko bois le calice jusqu'à la lie après dinaa interrogé, interroger ki nga xam ni mooy borom le mandat mais li ma waxoon démb ci ben yene kay mom lay waxat tay le mandat d'accorduma ndax Sonko voit le calice jusqu'à la lie il faut nga deg tuap comme madame Nya pour mun xam ki lan la bëgg wax c'est vrai que titre nak mun na am mun na am aspect kumpa pour pousser la nga dem liir article bi waaye ñun Sénégal nga xam ni xam nga tey boo demoon dëkk bu mel ni France boo fa defee tiitre bu mel nii automatiquement quatre-vingt pour cent des Français xam nañ lii waaye est-ce que dëkk bu mel ni Sénégal war nañ fi def lii donc loolu incha allah après euh, borom la mandat di Aliou Sow dina expliquer. lan moo tax mu jël décision bi démb nag moo defoon une bu gën a mag bu gën a bu gën a inspiré la meilleure une waaye tey nag grand bi jaar na à côté tey moom d'accord ma si ni mu tiitre ndax tubaab bee diis te ñun dégguñu tubaab dégg nga te ñun ñooy jënd journal bi ñoo koy ñoo koy lire après dina ko expliquer jox ma keneen tey mandat zéro 0 sur 20 Manda, qui est l'escalade sud ah, l'escalade barne titre bi na l'escalade du vous bu rechercher photo bi rafet sous titre jar bravo sud oui merci aja jox sud liguey l'escalade jox ma kii kan la Sonko à huis clos huit mooy lan ñoom dañoo inspiré aussi huit charges yi nga xam ni moom lañ ko toppee lii mooy jeu de ci ci une hmm? ñoom Madiambal Diagne ñoom lii moom mooy seen fort ah bien tàccu leen tàccu leen merci beaucoup quotidien bi baax na acca kii kan la laas mu ne Sonko écroué à Sébikotane ñoom andi nañu information bu bees ndax ñu bëri dañoo jàppoon ni Sonko rëbës lay dem mais Sonko Sébikotane lañ ko mujj yóbbu si biir émission bi naa leen wax lan moo tax ñu yóbbu Ousmane Sonko Sébi ak décision bi nan lañ ko xalaatee càmbar ko.

Il me ñooy Wolf Quotidien suñu grand grande <laughs> Ah, bi le cocktail est explosif mais est-ce que ça va exploser <laughs> L'olé laaj bi <laughs> acha. acha. Sonko Pastef et le projet toujours debout yor yor Sonko le Pastef et le projet toujours debout journal Bida... faral Sonko opinion la Li li une opinion la Deng, ça n'a rien à voir avec l'information une bi wax mais ko Sonko le Pastef et le projet toujours debout li c'est de l'opinion c'est pas de l'info Deng, Hein dinil ma Deng dinil ma dinil ma yor yor man buguma buguma journal d'opinion wala nga bind yor yor journal de journal d'opinion proche de Pastif. mu leer <laughs> Deng. Ce titre ba grand tere wuñu nit mu far mais journal partisan dafa am mais waxal man dama far képp kuy dem jënd yoor-yoor wala ngay liir yoor-yoor nga xam ni yoor-yoor fii la far mais munoo munoo enrobé wu si indépendance équilibre ak yooyu équidistance ba pare fekk yow da nga far fii ku fi far naa la wax ah xolo xolo journaux ku si nekk xam naa foo far ku fi far dinaa wax da nga far école mu bind Sonko ah hein? wa xam nga dafa am benn lampe buy tàq si sama sama kii en prison Pastef effacé deux morts à Zik waaw les éco ñoom dañoo ils ont bien résumé la situation hmm? Sonko en prison Pastef effacé deux morts à Ziguinchor ñoom situation bi démb bi moom lañu ñu moom factoriser def ko ci une bi mu leer nañ boko ko rek li mo résumé journée démb bi ah. waaw waaw incha allah maa ngi ñëw <laughs> tàccu leen mo les Échos way tàccu leen les Échos way ah waaw waaw ils ont fait du journalisme manam sans sans sans yokk sans wañ ils ont fait du journalisme jërëjëf les Échos acha nuit noire sur la démocratie Voilà. témoin waxuma la nuit noire journée noire pour la démocratie Je man mënuma mënuma gis yéenekaay bu wara a jubiler ci recul démocratique ndax recul démocratique mënul dépasser nga jël parti politique dissoudre ko yooyu nag xam naa ni dinaa si waxtaan ak gan gi ndax recul la wala avancé la mais daal parti nee nañ vitalité démocratique ñu ngi koy mesurer bokk na si si le nombre de partis Sénégal liñ ko doon liñ ko doon bàqee mooy c'est un c'est un pays où il y a plus de 300 partis politiques ku bugg am parti am parti alors du ndam incha allah nañ si dellusi si dégg nga aca andil beneen le soleil double peine pour Ousmane Sonko a ñaari peine la jot de bu njëkk bi mooy dem na prison beneen bi mooy ñàkk na parti soleil le quotidien gouvernemental. C'est rare qu'il parle de son C'est ah. rare qu'il parle de l'opposition en général. Ah, c'est rare. Sauf là pour du négatif. Non, sauf pour du négatif. Très bien. <laughs> loolu parole de Aliou Deng. la Anil Anil Qui ma keneen kii a ah, le mandat mais grand c'est deuxième une bi là. am yow yow foofu ngay fële yow da ngay def deux une waaw kii kan la. alors Macky waaw waaw loolu moom loolu moom sax ah. école ak université du ay arène pour ay gladiateurs waaw waaw xam naa de il fait allusion à li xewoon ci université. waaw waaw waaw mais discours bi ñëpp sax lii lañ extrait bi lañ teg rajo yeeg télé yëpp. ah kon jeex na kon kon grand. vous avez collé à l'actualité même bi ci kaw sax. fële fële tàccuwuma leen mais bi, <laughs> bi, dama lay tàccu deuxième une bi. tàccu leen tàccu leen Aliou avec le mandat <laughs> ah t'es, t'es, t'es, t'es, t'es xoolal. Hmm. même soleil sax. deful lui une. waaw te nag concours général non? mais mais soleil deful lui une parce que sont euh, Sonko. waaw xam naa da leen a neex trop. waaw mais nag concours général quand même. concours général. dara la la. Ah. moo tax xam naa yow nga partage une bi. ok man tuuti lii laa def waaw nañu dóor. Sonko exceptionnelle dóor. dóor dóor parce que Sonko mooy li nga liir ca témoin. Hmm. moom laa bind ci kaw. ci hmm. gàttal. di nga ñëw grand. grand <laughs> grand il faut mu leeralal ñu ma ko di nga ñëw. acca <laughs> eh, eh, jàllal. l'info l'unwa la terre se dérobe sous les pieds de son Sonko. la terre se dérobe sous les pieds de son mm-hmm. ah l'eau de l'air, non. Hein ah. Jalal, les erreurs qui ont. ces erreurs qui ont perdu son. Ah, ces erreurs qui ont perdu son Sonko Madame, lis moi une analyse dégg nga wax ju c'est-à-dire ñoom ils sont partis ñoom waa enquête au-delà de l'info ñu def analyse revenir ci faute yëpp ñu jàpp ni wala erreur yi nga xam ni Ousmane Sonko commettre na ko. ba li ko dal démb. mooy tuuxi doon. dal ba dugal ko ci tuuxi waaw maanaam maanaam li mooy une une d'analyse. dégg nee naa leen enquête journal bu crédible la ah ñi ko ŋànk ñu ñu ñu crédible lañ. Hmm. dégg nga hmm. waaw gan gi mooy ñëw noonu ah. xam nga Bamba Obama léegi star la léegi dañ koy xaar quoi loolu mu jaaxal ci ci Bamba Obama ah Bamba Obama bu yàgg ba boo ko invité boo ko invité day ñëw une heure avant dégg nga toog di xaar. mais léegi bambo Amama da nga koy invité bambo Amama di la jaay star <laughs> borom jëppal le futur maire de jëppal Derklé la lay jaay ak mm. nit bo xamni ni télé yëpp koy solliciter, mm-hmm. deuk yep koy solliciter, yoy la lay j'ai. Acha, après enquête ñol dina ko nuyu légui ci kanam Acha, qui moy populaire vox populi mm-hmm. Sonko en prison le pasteur dissous grand am na lu ma gis de yee eh, grand. Hmm. am na lu ma gis de grand dama gis faute à la une. waaw grand yow toog liiral. diisu amul tee. diisu tee la kay. kon jeex na. déggoo ma ah. non ñu ko am na ñeneen ñu ko def. gis naa ko ci beneen papier léegi. une ma ne une. Bamba. ça c'est extrêmement grave grand après nous, mais une. il faut non une. non il faut des bons correcteurs. non une une il gis nga une beaucoup plus 22 vingt heures Bon minuit da nga a une. avant de valider. oui parce que une une moi, mooy vitrine au journal. absolument Moi, j'ai dégg nga ci Hein? ah normalement wa populaire kenn warul nelaw. wa te daw da Diarra du ku ndaw. waaw ah, kon de. non daw non du ku ndaw il est extrêmement vigilant mais li li li li, lii parce que man man mu ni la armisa dama xol rek gis ko. wa c'est ça. asantuma keneen. te xam nga journal am na une bu jiitu bu ko def. waaw xaaral rek ma ñëw journal hmm. jàngalekat la.

nga xam ñaar wala ñetti journal fi wala ah, ëpp solo ancien populaire <laughs> mais mais li li dafa suivi au au cours de la journée ah. dina, dina câble wa populaire na leen li ngeen def ni lan la te bu doon ci tubaab nga encadrer note de l'auditeur pour s'excuser ah sinon journal d'autres dootul parce que li li dafa am légèreté oui il y a eu légèreté c'est-à-dire toute la chaîne de responsabilité dañ len wara a sanctionner ah. mais eh affaire du ay caaxaan ligue du caaxaan non ma chef d'édition bi waron nako gis directeur de publication rédacteur en chef ah. correcteur chef de desk mais attention. Ah, mais il doit avoir une mais mais mais non il doit avoir une conférence hein, de rédaction pour que gérer les titres. Non. Tu non non non non c'est grave. mun na am nag dégguma tubaab mun na am li wax nii yëpp man ma juum mais Aliou Sow munu fi toog Aliou Sow la tubaab ne di suut tee la ma ne tee di suut di nekk es ah dina ma jaaxale kon de xamuñu dara kon ñu ñu dem maam Ngor Ngom ñëpp jàpp nañ ni mooy référence référence bi ci wàllu tubaab mhm. ah? ah dëgg la wala du dëgg non c'est xaw ma ko quoi dama koy dégg rek <laughs> ma ne dafa ndànk rek grand lii mooy critique presse voilà lépp fii lañ koy réglé dégg maa bëggu maam ngóor ngom leeral ma ndax maam ngóor grand ah ñëpp nangu nañ ni mhm. bu dee tubaab kese mas na nekk directeur publication tribune dégg ku nekk chroniqueur yenn saa yi sax maa moom dañ doon nekk wal non kii kii il faut il faut mu am ko eh grand Doudou. asalaamaaleykum maam góor. mais grand maa ngi lay nuyu bu baax. ziar activité mais grand xam nga lu tax ma woo nii. waaw waaw. mais grand dama xool une populaire bi tey. <laughs> waaw. ñu def Sonko en prison le Pastef dissous. waaw waaw waaw. dissous bi ñu def ko S. xam nga comme que man sama tubaab. su ma ma ne xaaral ma laaj référence bi maam góor Ngom. <laughs> pour pourtant loolu laa doon expliquer léegi. ah xam nga di xam nga di di di particularité boobu la am quoi. waaw. bo ba au au masculin dissous il est dissous est nga ci def ko mais mais mais léegi accepté nañ tey ko il est dissous dissous ah kon ñaar yëpp baax na. ñaar yëpp baax na ko waaw. ah bon ah gis nga leeral bi am na solo de. mën na mën na def bisu mën na def def kii defoon naa ci poste sax bu yàgg yàgg mais après naa la ko envoyé tabarta bii mooy tabarta ne pas waaw waaw naa la poste bi <laughs> ah bisu bi baax ak s waaw baax na waaw baax tamit du ci eh, tamit du ah, ah, bi sax ko eh, ah réforme mu quatre lan ko lan ko lan ko ah réforme bi mais bu njëkk mais bu njëkk moom bisu s rek nga def ci def ah d' accord correct eh, comme ça quoi <laughs> ah merci beaucoup waay boo boo gisee teg ci Mamadou Oumar Ndiaye bi sax dis dis dis bi yëpp def na ci dem yëpp def na ci dem dafa ci dee quoi. ah Mamadou Oumar Ndiaye témoin. waaw def tey. ah très bien. dis bi def la quoi mais noonu la quoi journal bi ni mu ko defee noonu. moo tax leer lu baax. non non waaw c'est vrai ah. maam Góor merci beaucoup. yi moom kenn kenn kenn xamu ko de làmb rek da ngay làmbatu rek. <laughs> merci beaucoup maam Góor Ngom. merci merci gis nga xoolal leerlu. xam nga lu tax ñuy accepté. tee bi tee bi sax gën a kii. waaw mais je crois que tee bi sax je crois que finalement est bi dootul continuer parce que tey jii nii. Hmm. boo defoon Sonko en prison. allez, Maki, je ne lui souhaite pas ça. Maki Sale en prison et l'APR dissoute hmm. je crois que ni c'est une erreur qui a été corrigée. Hmm. que avant S parce que académiquement Nyom comme erreur comme faute hmm. dans le dictionnaire. après au fur et à mesure du temps ils se sont rendus compte que c'est ridicule parce qu'il suffit juste nga Yobuko euh, un nom féminin pour que la la pair c'est impossible tu peux pas le dire donc dissous bi man waratul sax bu ni dafa mhm. man tu ko tu dafa tu sax continuer de accepter mhm. parce que tout simplement euh, euh, le côté féminin mhm. parce que féminin bi su ñu euh, euh, c'est parce que parti le, parti africain pour le je sais pas quoi tout ce masculin le parti mais tey boo waxoon un exemple APR l'alliance alliance pour la république on dit une alliance hmm. donc forcément de mon avoir dissous, dissoute dissoute ngay donc à mon avis c'est une correction bon hmm. c'est une correction qui a été faite et que dissous bi bu faites que ngi koy nangu ba accepter mais surtout que correction am donc ça veut dire que li a tout le sens. d'accord ndax sinon quand ça veut dire que de correction da nga corriger bille parce que da nga gis erreur moo ñu nangu sachant que ni li tout erreur la won. et puis li logique bi ma aussi wax la expliquer ko moi si c'était euh, euh, précédé par un prénom féminin ou un nom féminin. bu doit avoir wax parce que déjà ça sonne mal à l'oreille hmm. ça s'entend pas bien et puis euh, euh, c'est euh, justement pas forcément confortable dans le sens de l'écoute donc forcément Nini, je pense que ni dissous moi je continue à dire que ni c'est une faute puisque de toute façon faute ngay corriger corrigée. Hmm. dès l'instant que ni confirmer nañu ni corriger nañ ko ça veut dire que li corriger mooy lu Hmm. doo corriger dara ba pare bàyyi li nga corriger. Hmm. quand je corrige ça veut yaa li ma corriger lu baaxul yi laa corriger. Hmm. mais du ma corriger ba pare indi lu bees ne lii mooy lu normal li ba pare continuer di téye li ma corriger kon sinon amul njëriñ may corriger. wala boog d'accord bëggoon naa nag échange ak moom ci wax bi. incha allah waaye xamaa na dina ko dégg. incha allah mais dissous bi li kenn dañ ko war a dindi parce que boo jiitalee non féminin rek di nga xam ni c'est pas terrible. Et puis même plan au niveau entendement, c'est encore, encore moins. C'est pas terrible. di suuf corriger comme confirmé le corriger incorrect ko rek. pas hmm. corriger dara ba pare li corriger mi ngi une de son euh, de de du du de Vox Populi fait débat. ah bravo. Hmm? kii mom nañ ko gën pousse quoi. man man man man sama bo démé ci sama euh, journal ci biir à l'intérieur un de mes correspondants bind na mir parce que man je fais office en même temps de correcteur. Hmm. de mon de mon journal. Hmm. mais man bima euh, gissé discours bi euh, sur Abdoulaye Daouda Diallo benn texte sur Abdoulaye Daouda Diallo page 3 dama ko dama ko dama ko corriger. Hmm. dama dindi S bi corriger ko duma wax tour bi sama correspondant la mais dama dama ko corriger. dama def dama def dama def. même man man corrigé naa si. Euh, dama def dama dama dindi S bi def. benn titre waaw waaw non non baax kiiwul. parce que et puis sax logique quoi Doudou. mënoo corrigé dara. ba pare ba pare bàyyi ko fa <laughs> loo corrigé mooy existé tul. dëgg la wala boog. dëgg la ah. acca ñu dem beneen. beneen yéene kaay. Hmm? Macky déchire le projet. kii kan moo bind lii bés bi. bés bi la

mun opposé poser équivoque c'est-à-dire. Mhm, c'est vrai. Euh, le Macky n'a pas déchiré na xanaa nag contre contre il n'a pas déchiré le projet. non c'est même insulter le. hein? le cas de séparation des pouvoirs. Hmm? d'accord non grand idée démb tagg naa leen waa bi mais tu es tagguma leen ah. non ah, dama

journal bi buñu ñu moy woon passif ah? voilà ah oh, bien. Ah, ah, d'accord non. té Madame, journal indépendant Il faut voir... Il faut voir... Il faut moytu di utiliser yenn mots yi andi équivoque. c'est ça c'est ça. tambanga jox ma len de bëss bi. jour. aja les des, euh, les œuvres caritatives. waaw lii moom fu ñu follee. Euh, mooy xam nga khalisou wala. waaw waaw waaw. xam nga pasteur dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko keppal dañ ko këpp yalwaanam. waaw ah. waaye bu ñu këppee en réalité yalwaan bi keppu ñuko ci souf dañ ko jël kepp ko ci ben siwo. Hmm. légui siwo bobu so bobu ñuko ko këpp wala paan boobu ñu ko dañuy jël li ci nek tassaré ko jox ko ay œuvre caritative manam buñu ñu dissoudre parti bi. waaw

incha waaye li si xaw ma nag ndax ça se passe comme ça. mais est-ce normal noonu la war a demee parce que parce que ñàkk ñu fay def aussi di leen seetaan au moins bu leen naree euh, nangu seen i nañ ko jox sax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla. incha allah. nañ jox keneen Sonko en prison libération. lii moom lii moom moom mooy titre simpliste. ñoom sonnuñu si quoi. son Sonko en prison. Acha Sonko. Son kao Non. À titre de qui est populaire, non, qui ah, pas, mal, observateur, l'Obs. Qui n'est Non, c'est pas mal. Ah, c'est bien. nañu hein? Ah, ah. Sonko. Son kao Non. Hein? Son kao exclamation. Ah. Dañ ko hmm. Non Ah. bon, bon, bon, bon, bon, grand l'or yo yo yo yo moi j'aurais mis juste un petit espace. espace. ah espace ah. son. espace espace mais mais mais moment ah, mais niveau de la. non mais monsieur Nyan monsieur monsieur avant tout. Hmm. parce que le la. Hmm. parce que femme mooy kilifa di la setaan am cofeel ci yow ça fait parce que li mu lay wax ñu ay ndaw leen ñun su grand yi ñooy suñu référence yàgg xamaguñu mënaguñu waaw tey monsieur Niang dama koy santaat di ko gërëm di ko ne dama baat bee xaw a dee ndax yow yow ndee du dañu jógee ci benn tournée africaine bu metti demoon liggéeyal Sénégal waaw te li ma jox jàngat ci tournée boobu Sénégal am na démocratie hmm. waaw Sénégal am na démocratie de hmm, baax na dëkk bi ma dëkk bi ma jógee turu Paul Biya doo ko wax <laughs> kenn du ko tudd si dara non en fait sénégalais ñoo ngi voyagé di xool. <laughs> baax na moo man de man de euh, waa Séfi yóbbu nañ ma Mauritanie. <laughs> waaw. Hmm? waaw. neexoon bi ñuy jógee aéroport Dakar. kontaanoon ñu teel ñu woo. nañu bu ngeen yeggee bu ngeen mos wax ni ay journaliste nga. déggoo ma de. ñu nañ wax leen lu leen neex mais bu leen wax ni ay journaliste ngeen ana zongo ko waxee rek ana zongo norbert ah ana zongo norbert ñu ne kenn gisul yow boo ko waxee boo ko waxee ngeen ko waxee foofu ba ak seen groupe boobu ngeen ne huit journalistes sénégalais mm-hmm. hein c'est même pas le ngeen am coow boo xam ne balaa ngeen di génn aéroport ñu ne ñu bu leen wax ben yoon ni na ngeen di ñëw séminaire canal france international mm-hmm. sénégal am na démocratie leen sant yàlla merci beaucoup Alors? Je fi critiqué le hmm. mm-hmm. en prison. Ah, est-ce que c'est c'est c'est pas ah, pas 24 heures. pas c'est pas pas le pouvoir non mais mais mais <laughs> faut pas personnaliser mais on ne ça. faut pas personnaliser mais c'est-à-dire xam le juge du premier cabinet Mahamdial, mais munul bañ a. ak charge Sonko. il est obligé. Sur le réquisitoire du de le mettre. Non, mais, non, c'est pas Maham. Où est le pouvoir judiciaire Faut pas personnaliser. Mais bien sûr. On y ah. wax lii quoi li wax bi dafa et puis anti trahi quoi. Ah, hein? te kenn d'accord aussi hein? nous ñun ñëpp si table bi d'accord. non eh 24 heures dans ngeen. naa war kii grand Diop. le ah, directeur de publication. d'accord? ko daanu ba pare envoyé ko affaire waaw daanu nga daanu nga. ma xam envoyé Sonko en prison kon. daanu kon réew mi daal dafa am le grand jury nee nañ daanu nga. c'est pas bi correct fii mooy vrai correct bi. correct bi vrai correct bi nee na daanu nga. vrai bi man maay man maay kii nu mu tudd suñu président correct bi nu mu euh, man maay coor ñii ñooy samay adjoint. moomu coor waaw aca jox ma keneen. wala la la euh, fa Seyda Macky Sall mm. disu disu boobu teel a ci def. Ah, boobu disu lañ def gis nga. Mm. léegi léegi kon loolu ça porte ça ça pose polémique mm. euh, nu mu tudd kii sommes-nous en. sécurité. en sécurité ñoom kii kan la ñuy waxal. Branco ak ah, Branco nu mu duggee da ah. Sénégal. waaw moom léegi kon kay comme c'est un passoire. waaw léegi waaw léegi nag problème moom mooy am na ñoo. Branco mi lu ko neex xam kenn gisu ko. lu ko neex mënoon na ko dogalaal ak ci ci réew mi. mais loolu nag laaj ah. non la porosité de nos frontières là. est-ce que du booy jinne de. Hmm. Hmm. mais mais hmm. mais euh, Obama ñaari at tëj nañ fi suñu frontière ak Guinée chaque jour boutiquier bi ne la maa ngi dem Guinée. dem dugg Guinée génnaat te temps wu Covid 19 la. c'est des questions c'est des questions waaw mais eh nañ nañ toj yax bi. Ah, xam nga lu wax ñoom looy wax frontière ba daal boo fa yeggee boo mënee fay. di nga jaar c'est que. xam nga Blanco neex <laughs> c'est parce qu'il y a la complicité aussi mhm. de certaines, justement, euh, de, nos, administrés ou mhm. certaines personnes de notre administration, mhm. ils, sont, ils sont, elles sont complices quand même de, ce, de, cette entrée-là. Parce que, il y a une fatilico, Omar Sarr, défend nos Donc, man, man, Dame de Mauritanie, jaaree aéroport. ba pare man lii rek kese métti wu ma sax li ma si métti leneen la. Hmm. mooy c' que le fait qu'ils viennent au Sénégal pour snober les Sénégalais avec la complicité de certains Sénégalais. yooyu hmm. dafa ma métti quoi. waaw dafa dafa dafa ñaaw ay nit protéger ko noonu comme ça pour mu dugg pour ridiculiser suñu réew wan leen yéen tekkiwu leen dara seen frontières yi baaxul man lu ma neex wax seen président su ma neexee damay ñëw taxaw fii jàkkaarloog yéen te mënul leen waxul ak président de prendre ko bi procureur la waxal non non mais na lu waxoon président avant muy ñëw biñ ko téye ci frontière waaw ah, boobu dàqoon nañ ko kañ mais bi yoon bu mu ñëwee waxul ak président procureur la woon xam nga wax boobu mi ngi fi tegu avocat la waaw mais amoon na fi ay wax non mais Aliou kii nag avocat la il a le droit de parler au procureur mais avocat amul droit def ko mandat d'arrêt kookan la. avocat kenn amul droit ñi ko mandat d'arrêt léegi nañu ko arrêté. ah déet dama lay wax rek man xaw ma fan la toll. ndax mandat d'arrêt amoon na wala dama ne moom aussi il a le droit. man du nangu mu ñëw di wax dara suñu président mais il a droit de parler au procureur te jour boobu procureur. la waxal yow yaa ngi may wax waxu procureur léegi man wax mu fi ñëwee laa wax ba taxaw ci aéroport ba. waaw d' accord mais bi mu demee continuer nañu mais yoo xam ne

am day topp si yàgg gratuitement nii muy attaqué nii. waaw waaw mais attaqué bi. mais grand da nga war a bàyyi loolu aussi. waaw mu ne. Sonko en prison Macky réalise réalise enfin son rêve. bi bi nag noo ko gisee. non di di di non di di di titre dara. xam nga damay bañ. wax démb ci tribune waxaat tey ci tribune ñu ne ma da ngay acharné wu. la vérité waaw mais waaw moo tax ma ne. lii du titre dara. fa laa bëgg yow ah. tax ngay bañ loolu bañ loolu ah. waaw kon boog. masla masla quoi waaw waaw. non xam nga Sénégal doyen moo yàq suñu dëkk masla. waaw xam nga Sénégal moo demoon nag. xool xool wax bi xool Aliou Sow sànq mu attaqué ko moom lay fayu nii de. attaqué bi mu ko attaqué léegi léegi si wàllum branco. xam nga moom day won na pare. une minute après mu won ni moom moom Sow la sant léegi xool attaque yi may attaqué nii ah. gis nga su ma ko attaqué wul woon il y a une minute. si branco dafa teg sama journal moo ma njëkk attaqué. ma def résumé wax fa loo xam ne lu leer nañ la sauf que yomb la comprendre c'est vrai mais en temps xale yi dinañ ci jàng xale yi ah. dinañ ci jàng pourtant pourtant wax nga ko léegi ne nga journal dafa war a dafa war a jàngale am jàngat ah. waaw pourtant yow waxoo waxoo ne mais jàngat boobu xale yi war nañ dem seeti ku ko lire nga curieux nga dem xool nga ne mais man kii lan la bëgg a wax ak texam bi ah. titre bi la tax mu wax loolu dans le mandat mais yow yow duggoo ci détail boobu da nga ne rek dafa war a simple parce que lii sénégalais yi. mënuñu ko comprendre mais yow nee naa la après mais yow yow yow Seck yow ñaar yooyu nga ma guuxal dama guuxal guuxal boobu guuxal ma ñu branco bi léegi mu ne xaaral rek ma dëm dama ñëw tribune rek xawoon ne damay maslaa rek mu ne ma looy maslaa. moo attaqué la waaw pourquoi attaqué ma. non mais waroo maslaa parce que xam nga li ngay xalaat. moom nga war a génne. même bu fekkee ni mais ñoom ñoo juum. te yow gis nga ni dañoo joom ñom tagla na ñaari fan di joom xeyna ñettel fan bi duñ joom ah, xeyna li bo len ko waxe encore tay waye tay yaangi daw nga ne man mhm. buguma sax ñuy xalaat ni dama len bañ waaw non alors que dans ñom waru ñu sax xalaat ni da len bañ xam wara xalaat ndax li nga wax deug la avament Sénégal mo neexul waxtaane Sénégal neexul waxtani xam nga demb mhm. dama wax fi ni bugan ni muy def ci organam bi di des médias groupe de presse bi teggu ko fenn fenn dégg nga ci baax mais xam nga tey boo ñëwaatee song tribune dañuy ne. non finalement. ah mais Doudou Coulibaly mii. nga xam ni vélo sax amu ko. buggaan teg ay flotte oto. kooku loolu la ko iñaane xam nga. mais man dama xalaat noonu. mais sénégalais mooy xalaatee noonu. non pourquoi man sénégalais la am na ay sénégalais du ñu xalaatee noonu. sénégalais de France nga nag. non non non non sénégalais de France. Doudou amna na sénégalais yi nekk fii li ngay li li xoolal. li nga wax ne li ñu xalaatee noonu xam lan la ñuy wax xam lan la ñuy seet. Ah. ndax Doudou li wax dëgg loolu. du c'est que yow bu métti woon tey da ngay ñibbi. yow da ngay jël avion dem. Mm-hmm. yow meloon comme Marc mm-hmm. Obama mi nga xalaat dama bëgg a mais grand yow nga xalaat dama non grand mosoo taw si ambassade di ñaan visa waaw d'accord mais ah. léegi non xamoo luy loolu waaw ah, mais mais loolu grand xamoo luy amba euh, lan mooy embarcation de fortune pour dem jël gal dem waaw oh, mais ba tey. yow rangoo ci ambassade. waaw d'accord na grand dëkk bu tàngoon tey. waaw lu da ngay jël say bagages mais mais grand parce que yow da nga am nationalité française. non mais d'accord ok mais non dama ne tey bu tàngoon. yow da nga France léegi damay dem. non grand dafa kon kon loolu. non yow da ngay dem wala demoo mais dama ne. tu as la possibilité dama ne. non waaw tey bu France doon évacuer. ses ressortissants. yow boo demee euh, fële ambassade. waaw dama ko def. waaw non dama nag grand ah, yegguñu ah, foofu. man maa dama lay tontu rek. parce que dama xam ni. waaw non non damay wax tam sénégalais yi. sa situation. Mm-hmm. waaw d' accord. su fekkee da ngay nëbb sa situation mën naa la. non nëbbuma ko waxam garaawul naa la <laughs> weeje non waxal garaawul. da nga am ay këyitu tubaab. waaw ah, bokkul ak ñun de. bu ñàngoon da ngay da ngay da ngay dem. non loolu wóorul la. mané mën nga dem bok dama juum waaw mën nga dem mo mën nga dem waaw mën nga dem mais grand ñun amuñu fuñu dem dem waaw mais man am aw ma fu dem man je considère que aw fuma dem dès l'instant que man ma choisir ñew ci réew mi pour def limay def ni nek patron de presse c'est parce que dafa am luma bëgg changer mais grand am nga ki mais loolu amul solo parce que ah, am non si déet non su amul solo man parce que am ku nekk ak ni la yalla bindé mhm. am ñu xamné mais grand yow lo xam nit ñi ñu ngi ci def 800000 1 million 3 millions diko fay yow heure bu lu buggee yow bu la nexé tay 19 h du la fekk fi grand santal yalla man privilège la. Mm-hmm. non déet mais privilège bobu bu ma bu don lu ma jiital deug deug dëgg ma sonal sama bop mais parce que que xam nga tax non ku nek ak li la naqari. mais grand non am ñoo xamne ne buñ ko amé da leen di neex. mais man loolu sama tégal Aliou nangul ni privilège la pour privilège la. mais privilège dang kay dang kay user mais man am lu

lol dina ma xaw defal tuuti way nga tok fofu ay at di xool di am lula la am ñoo xamne ne dérangé wu leen mais man daf may metti donc metti bobu nak may tok fofu même avec ben confort man je l'appelle même un semblant de confort parce que nga tok ci yoy ba pare té sa xol neexul ça sert à rien je préfère à la limite sax li may def ni dina ma xaw defal parce que ma ngi créer ma ngi wax ma ngi jema influencer ma ngi changer ci li ma xalaatee nii réew non la wara développer moo ma téye fi tey bu ciow jibon suma ma tamit après ma toog foofu sama xol bi day continuer di bon et je serai très malheureux man le bonheur ce n'est pas du matériel. c'est du loolu le bonheur mooy li nga bëgg li la metti nga mën koo faj. li ma metti nag mënu ma ko faj mais dama nekk di ko jéem mais au moins maa ngi ciy defalu tuuti. ndax au moins maa ngi essayé waaye ma toogoon di croiser les bras chaque jour avec non nous machin tout ce que tu veux ah, ton jardin machin non ça marche pas. d'accord la parole pour nous expliquer. pourquoi. yamo dougal de yamo yamo ah, yow yow ya yow ya xam nga yow lu presse bi RPP bi ya ko motax man bu man <laughs> journaux yi. mais légui dama bëggol dama euh, le garçon Obama. ce grand garçon mu xol lan la ci titre bi. comme nekk fi comme fi régie. journal am la moom. waaw essayé ko andiwaat.